suñu borom ñu fekke ko ay at yu bare bari te at mu jot gën a neex ñu fas yéene ànd ak suñu ay téléspectateurs seeti ndaanaan yi seeti célébrité yi waxtaan ak ñoom baalonte ak ñoom ak may leen itam occasion ngir ñoom ñu baalu ak seen ay téléspectateurs wala boog ñi nga xamante ne ñooy seen ay soppe wala sax sénégalais yi nga xamante ne ñooy faral di leen suivre di leen topp di leen bàyyi xel ñu seet si koo xamante ne nii il n'est plus à présenter il a s'imposer ci milieu bi mu nekk fexe ba tey euh, fu ñuy tuddee animateur wala ñuy tudd communicateur wala ñuy tudd kuy téye micro dañ ko ciy boole euh, fexe na sax ba influencer ay ndaw yu bari euh, numéro un yaa ngi dégg numéro deux bu ñu waxee Omaro mu Cheikh Béthio ne Omaro ca daakun bi ne Omaro mu 2STV yi ne sax Omaro mu Waly Balago Seck xel dina ko nangu ndax coow li bari na Omaro cantaakun de cantaakun à sekkaakun loolu yëpp daañu ko waxtaane tey ndax nag fi toll nii tey coow li tey de bës bi wax ji bari na daañu ko waxtaane daañu baalanteeg moom ak yooyu yëpp daañu ci dund dugg ak moom léegi-léegi lay doon waaye laataa loolu dañu koy bàyyi mu nuyoo ñu dalal ko bàyyi ko mu nuyoo ak sénégalais yi Seydina Omar maa lay di la nuyu bu baax Alaaji Mara maa ngi lay nuyu di la ziyaar sama rak sama xarit lu yàgg dëgg la du tey la ànd wi yaakaar naa ne ànd bu demee ba def juróom-ñaari at jëm kaw rek ànd bu dëggu la ndax fi jamono toll tabarkàlla macha allah te boobu ak léegi li nga ma mënoon démb ci bi ngay door sa carrière di ñëw ci man ba tey bi nga imposé ba àddina xam la loolu nga ma wan beewoo fuyoo reewoo te it fàttewoo démb maa ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fante wér say cër bu baax a baax di la wax ne kontaan naa trop ci gise bi yàlla xam ne ni li ma am ci ay demande tey pour waroon na wax en exclusivité polémique bi am ci ñaari fan yi jëm ci yi mujjee xew pour na pas exagérer waroon na mat vingt ou vingt cinq de de organe de presse ak de télévision yoo xam ne sàkk woon nañ teewaay bi waaye dama leen ne woon nañu bàyyi bu julli ji weesu waaye yow da ngay sama rakk te lu dagg morom ba lay fekk ji waaw koo xamul na koy def rek nim la dafa tax lu dagg morom ba lay fekki moo tax bi nga insister rek mën na la fekk ma sama kër yaay Liberté 6 foofu laay jullee boo ñëwee ñu waxtaane ko maa ngi lay déglu nag fas yéene waxtaan ak yow ci baat ak tontu incha allah. jërëjëf ñu nuyu bu baax a baax suñu yaay maman Zeynab maman Zeyna fii lañ ko fekk tey ci euh, kër yaayam Liberté 6 Omar na nga julli si sa kër yaay. waaw at bu jot sama kër yaay laa jullee at bu jot sama kër yaay am jabar ñàkk am jabar at bu jot sama kër yàlla jullee ma nekk célibataire rek ma nekk marié ci yam ma nekk marié ci yam parce que dama gis sama ay morom mi baay ak sama ay morom mi ndijaay yoo xam ne ñu ngi ay ñaari jabar yor ay doom te bu julli it jotee ci seeni kër ndey lañ koy defee kon nag la ci loolu laay roy parce que jëf ju baax la moo waral ak lu mën a xew lu ma mën a doon ak lu ma mën a am du tee fekk sama wayjur bu jigéen bi yàlla nga fi bàyyi at bu jot yàlla na fi yàgg te gën a wér damay ñëw julli si ak moom yendu ak moom ba timis bi maase ma tàllal loxo yi mu ñaanal ma yeewi ma ma delluwaat ci sama këru bopp. wax nga ko léegi léegi tey duñu la euh, tenir lu yàgg ndax soxla yi bari na war ngaa dem ziare ay euh, sa ay nit euh, mënuñu bañ waxtaan ak yow ci actualité bi nga xamante ne actuellement mooy li nga xamante ni moo indi coow li yëpp dama koy njëkk nag ci teraanga ji nga xamante ni da nga koo yëkkati jox ko Wally Ballago Seck nga ne tuddewu ma ko teraanga tuddewu ma ko delloo njukkal. addiya laa ko tuddee d'abord lam moo waral geste bi ak pourquoi nga tuddee ko addiya. Euh, Mara balaa may ñëw ci addiya ji damay ñëw ci jëf ji Wolof Njaay dafa am baat bu am solo bu mu wax dafa ne kuy dund nekk ci barab te tekk woo fa dara boo fa dee doo fa wàññi dara Mara ma la yëgal ni daaw ci heure bii fekkuma ci waal yi am na ci geneen kër gu ma fekkoon. am na ci yenn i mbir yu ma fekkoon nga ji dem kër waal demoon na ci ñoom ah dégg ah ci télé laay wax ci télé laay wax àdduna may seetaan dama ne. tabaski daaw ci heure bii L200 yëpp na juróomi xar boole ko juróomi saako soble juróomi saako pombiteer yóbbu ko ca fa ma ne woon lu tax amul coow li bi parce que koo koy waali benn kenn du waali ku dul waali ñaareel ba bii dafa gën a garaaw. mooy nag kii pëlëb plus pëlëb mooy ku yokku yaa wàññi daaw ki sama doole juróomi xar la yemoon ak juróomi saak soble juróomi saak pombiteer ma sante ko yàlla ndax am nañu ko amul ren sama doole yegg na ci cinquante xar waaye nag kenn du mën lépp def lépp may sant yàlla bu baax ci yokk gi ma yokk diggante daaw ak ren ma yëg ko sama xol ndax li ma li ma li ma li ma mayee ci fondation bi ci ay xar ëpp na 67 xar te les vidéos sont là les preuves sont yi dem ci prison yeeg hôpitaux yeeg daara alxuraan yi ak yi samay nit ñëw jël si ci fondation bi ki daral bi kenn xamul nu mu toll te lu ñu mayee rek liggéey ñu ko may sàccuñu ko triyandewuñu ko fenuñu ko rambaajuñu ko dañ koo ñàkk liggéey ko mu lew ñu doom ñu dajale ko denc ko ba mu ñëw ñu jël ko def ko addee jébbal ko jaam yàlla yi. benn politique aussi nekkul déedéet amul politique man ministre joxuma DG joxuma président joxuma kenn joxuma man sama jomama jox lu ma am sama jomama ko may ak sama ñàkk waaye da lu am solo muy teraanga ji jëf ji ma tuddee addiya dama la bëgg xamal ne man foo ma fu ma mas a nekk man Omaro def naa fa dara waaw damay bañ ñu jàpp ni eh, damay xeex wala damay damay defante wala damay naqaral ay nit waral ma jëfe ni ma jëfee ñu bari noonu lañ ko gisee mooy daaw nekkoo fi woon ren ñëw nga est-ce que bëggoo woon eh, ñu nga jógee ne yokkute am na déedéet xam nga lu waral mënul doon defante mënul doon eh, jëflante ci mer yi xuloo mooy man damaa defantewul kenn ku yàlla jiital nga ne ca kanam doone di gëstu sa ginnaaw te man xam naa ne yàlla fayul na ma xam naa ne yàlla attel na ma xam naa ne yàlla jiital na ma comme man li des sama dund xalaatatuma ci sama àdduna di gëstu di xool maa nga ca kanam ndax man loolu leer na ma dama la ne li ma jëf kër waali ren teraangaa yokk wërsëg yokk waral jëf ji demee nii mu demee tur yokk bayra yokk succès yokk ba pare ki ma ko jëfal mooy Sénégal waral mu jur coow lii mu jur waaye dama na ne daaw ci tabaski bi fam ma fekkoon sama L200 bu ñu yàpp juróomi xar def ci juróomi saaki soble def ci juróomi saaki pompiteer dem na ca kër faykat ba ma nekkoon te loolu rama sumaare ak ki ñuy wax tubarkàlla macha allah xadi caam ñooy samay seede ndax bi ñuy wàccee teraanga ji ñu ngi taxaw léegi teraanga ji lu tax nga tudde ko addiya te addiya d'habitude dañ koo xamoon ci euh, taalibe bu koy jox sëriñ waaw li tax ma tuddee ko addiyee mooy saayir taxul ma joxe ko la ma joxe woon daaw zaayir tax ma joxe ko la ma joxe woon daaw dama ko joxe ndax kóllëre la ma joxe woon daaw dama ko joxe ñox cofeel dama ko joxe ndax ànd dama ko joxe ndax loolu laa xam man man ku ma mës a sama loxo dem na ci yow bàyyuma DG yi bàyyuma ministre yi bàyyuma maire yeeg chef de ku mën a doon yàlla boole ma yow ci kóllëre ba ci sëriñ si sama loxo dugg na ci yow parce que loolu laa xam man loolu lañ ma yore mooy loxoy kajoor day weesaloo te timbax rimbax mën nga maa ëpp wërsëg mën nga maa ëpp at mën nga maa ëpp tur waaye doo ma ëpp jom moo war a seeg sa loxo ngi ñëw ci man sama loxo day dem ci yow même boo ñëwul sa loxo ci man sax man dinaa indi sama loxo ci yow parce que loolu laa xam li war a ma tuddee ko addiyee nag mooy dafa am baatin bu ci laxasu te ci biir baatin boobu dama lay bàyyi nga dugg ci deuxième question bi parce que deuxième question bi day ànd ak tontu baatin bi. parce que deuxième question bi moo waral coow li moo waral tey j'ai tout fait pour am Omaro Gueye te comme ni nga ko waxee y' plus de vingt presse yoo xamante ne tey bu ñu sañoon am Omaro ngir mu indi ay leeral ndax danga nga wax wax boo xam ne dafa indi polémique danga nga janoo ko Waly Balago Seck ne ko gëmoon naa yàlla bëggoon naa yàlla mais doyloowu ma woon yàlla wóoluwuma ko yaa tax ma wóolu ko mu indi coow lu rëy ci koo xamante ni dañu ne taalibi Cheikh Béthio la Cheikh Béthio daan na ko yóbbu ci Serigne Saliou mu yar ko mu ànd ak wàlliwu yàlla yooyu ba ñooñu wane ginnaaw mu ànd ak koo xam ne dañu ne dafay yëngu ci yëfi àddina mu jàkkaarlu moom na ko yaa yóbbu ci yàlla dèjà Omaro erreur de communication la wala wax la joo xam ne regretté woo ko wala mën nga ci indiwaat ay dama koy waxaat tey rëccu ma ci tarafatal ay ni du erreur de communication ndax je maîtrise ma communication. dama ne. nit ñi nanu bàyyi naa féq nanu bàyyi di linkaar suñ boroom nit ñi nañu bàyyi naa féq nañu bàyyi di linkaar suñu boroom daf ci am loo xam ne mënoo koo nangul yàlla waaye bañal ko ko Liberté 6 mënul ne benn suuf am benn asamaana am benn yàlla am allahu subhanahu wa taala. Mara nañ dal. la ma wax keroog damaa judd ñu tuddee ma Seydina Omar bunu Xataab fii nga ma fekk sama kër yaay juddoo ma fi yaroo ma fi bi ma màggee laa fi ñëw sama kër bàyyi laa juddoo sama kër bàyyi laa yoroo fu ma juddoo Masaka Sor ay ibaadu laa juddul xam nga Seexu Sërif barke Seex Saaliu Mbàkke mi ma yaakaar bi mu ñëwee Sénégal li mu fi doon def màkku ni ko def man mbaa ñi may waxal ñi ngi dund Ibrahima sàll mooy sama baay Babacar Sall mooy sama baay ñu bokk ak sama baay Ismaïla benn ndey kër gi seen seen kër bàyyi Amadou Sall marché Castor fa laa juddoo man ñooñu bokk nañ tey ci ibaadu yi boo doon wàññi juróom-ñaari ibaadu yi gën a ràññeeku ci àddina ci seen association bi sama papa Babacar Sall ci la bokk sama papa Ibrahima Sall ci la bokk ñooñu ñoo ma yar man dama juddu nekk xale ñu jàngal ma alxuraan jàngal ma xadis yi yar ma ci diine comme man mënu maa doon nafiq mënu maa doon iblis mënu maa doon kuy murtab déedéet loolu mënul nekk parce que ci liñ ma yar la mais wax bu jugee dof nopp yu koy dégg war a wér talax amut solo dégg-dégg am solo senegal nag dañuy déglu yàlla waaye dégguñu ko maara dama bëgg nga déglu ma dama ne Sénégal ñuy déglu yàllaa fi ne waaye néew na ci ñoom ñi dégg yàlla léegi mën nga ñëw ci wax ji lan nga ci jublu li ma ko jublu koy leeral mu leer parce que bu doon tey dama koy waxaat dama ne dama juddu ñu tuddee ma Omar géey kase ma nekk doomi jullit yaroo ci ay kër ibaadu ñu jàngal ma suma diine jàngal ma ay xadis jàngal ma samay taarixu diine jàngal ma lépp ma màggaale ak moom ba tey jii ma wax moo nekk ci man yàlla boole maag sama sang Serigne Salim Mbacke mu boole maag Cheikh Béthio Thioune mu yar ma ci diine ak lislaam yar ma ci taalibe waaye dama ne daf ci am loo xam ne mënoo koo bañal yàlla géejawaay bëgg koo nangul yàlla Ouest Foire mu mel ni ñetti yàlla dafa am wala ñaari yàlla loolu nag li ma bëgg mu leer mooy dama ne juróomi baat yi ma lay wax benn bu ci nit moo jàkkaarloog man wax ma ko bi ci njëkk damaa mës a tukki ànd ak nit ñu tukki ba yegg bitim réew mu nekk sama troisième wala sama quatrième voyage moom mu nekk premier voyage am bi ñu yeggee ba dal suñu hôtel xam nga lu ma di ko wax Omaro ma ne ko naam mu ne ma sama tukki bi dey tey ma ànd ak yow ma ne ko naam mu ne ma daa yokkaat sama tawxiit ci suñu borom déglul waa nit juróom baat yi ma la wax yëpp man lañ ko wax waxuma lay waxi jàmbur de luñ ma wax man laa lay wax loo xam ne sama liggéeyu télé moo ma may ma mën a xam junni nit te junni nit yi tubarkàlla macha allah ñoom ñëpp dañu may xam man maa wax baat ak ton ndax liggéey bee ma ko may fi may yëngu la mi la détermine l'individu ci li may yëngu moo ma ko may dama la ne man nit moo jàkkaarloog ma ne ma sama voyage bi dafa yokk sama tawxiit suñu borom man a ko lu tax moom ba dama xam ne avion ëpp oto ëpp ay car rapide ak ay bus lu mu mën a doon nekk ay tonnes mën a bët xuus xotti jaww ji di daw te dara téewu ko lu dul dogale suñu borom ak kattanu yàlla ma yaakaar ne foofu la avion bi yëpp avion bi daw ba yàgg di def ni doo daan di def di yéeg ak ko wàcc comme booy yéeg ci doo daan boo nekkee ki tali nit ñi di ko sentir ma laajte lii lan la ñu ne ma doo daanu asamaan la ma xam ne kon ni suuf amee doo daan noonu la asamaan amee doo daan ma yéemuwaat ci yàlla loolu de yokkaat na sama tawxiit suñu borom maa rek mi moom nee na doo daanu avion yéeg ci avion di tàbbi bitim réew dem ba yàgg waa dem ba yàgg avion bi di yéeg ci ay doodaan di wàcc mu laajte yëngu-yëngu yi la ko waral ñu ne ko lii mooy doodaanu asamaan ni suuf amee doodaan nii la asamaan amee doodaan avion bi mooy yéeg ci ay doodaan nee na moom loolu daa yokk taw xiitam ci suñu mu xam ne tubaab bi li muy doon doon doon doon doon jàmbaar li kàttanu yàllaa ko téye ndel benn ñaareel bi nit dafa ñëw ci man na ma Omaro man a ko naam mun ma dama def sept ans de prison waaye bi ma génnee laa am taw xiit suñu borom ma ne ko lu waral loolu ma sama nekkub kaso moo yokk sama tawxiit ci allahu subhanahu wa taala ndax kat bi may nekk ci mbedd mi damaa nekkoon ci sama bopp nekk ci li ma neex nekk ci di def ci li dal sama xel waaye fi mu ne kaso bi yar na ma teg na ma ci yoon jàng naa fa diine na ma Omaro baa xam nga ne ci kaso bi laa mokkalee alxuraan Omaro ma ne ko naa mënu baa xam nga ne ci kaso bi laa mokkalee xasida yi Omaro ma ne ko naa mënu ma ci kaso bi laa tàmbali julli ba fii may wax ak yow waxtu du ma raw kon maa ngi lay seeral ne sama dugub kaso yokk na sama tawxiit suñu borom muy ñaar ñetteel bi nit daa feebar tëdd ñetti at hôpital Fann bii mënta jug ay mbokkam génnee yaakaaram ci moom jàpp na si fini kii moom feebar bi ko daal kenn mënta téemu wuyu ji yàlla fekk ko fa sot ci moom barkeem ba fii may wax ak yow ma ngay football yi waxuma la wér na ba toog këram de waaye dama na ma ngay football teere xaar yàlla bii boo fa demee tàkkusaan fekk ko fa muy football te demoon na ba ay mbokkam génne yaakaar ci moom ndax ñetti at la tëdd feebar te wajug ba mu génnee daa ñëw ci man ne ma sama tëdd feebar ñetti at yi ma tëdd hôpital Fann bi ma génnee moo war a sama tawxiit suñu borom mu ngi ñett ñeenteel ba nit fekk na ma 2STV ma koy defaral reportage ci anniversaire u Batalo Joola ñuy feete anniversaire u Batalo Joola 10 ans yi xaw ma 11 an yi li ma la wax ni su ma tee 1 an wala 2 ans ci ci la waaw bi ñu koy bi ñu koy bi ñu koy feete di leen ci ñaanal di dafay def ay témoignage di fàttaliku maanaam feete fàttaliku hommage def ay témoignage lim dëkk ko wax mooy bato la li ma ca bokkoon di ñibbi si Dakar mbir mi xew ni mu xewee ay nit ñàkk ci seen bakken am ñu ci rëcc ma bokk ci rëcc sama rëcc moo waral sama tawxiit ci suñu borom rescapé moo ma ko wax koo xam ne tey bi bato bi këppoo daa war na bokk ci ñuy dee yàlla fekk ko fa xamal ko ni bato bu këpp taxul nga dee nekk ci sa kër tëdd ci sa laal taxul nga bañ a dee man maay rey te maa mën a rey ki toog këram maam ko ginne ci na mu dund dox soxla mu ne loolu moo waral taw xiitam ci li nga xam ne mooy allahu subhanahu wa suñu borom muy ñeent ju juróomeel bi maara tey da ngay waxtaan ak nit moo am bàyyi am ci moom yaakaar te li ma la wax nit ma ko wax dama ma doon ma ne ko naan moom dama nekk xale sama bàyyi am fukki doom ak benn may caata mu gën ma cee bëgg di ma teral di ma dimbali di ma sagal waaye toll gu ci am âge de responsabilité ndax bi muy génn àddina fukki at ak ñeent laa am 14 ans mu ne ma sama bàyyi bari njariñ lool waaye bi mu génn àddina ma wéet lool jàpp ne kat man moom sama dund moom yàqu na sama mag yi ak ñi nga xam ne ñoo ma féete mag ñoom sama papa ci seen at fi mu tolloon joxoon na leen ñu investir lu ñu atten ba fi may wax ak yow raw nañu mënutuloo torox ci àdduna waaye man kon tollu gu ma ci woon te sama papa mi ngi doon xaar ma tollu ci mu defal ma ko dee du tàggoo dee daw jël na ko fi mu ne man yàqu naa sama àdduna yàqu na munoo ma keroog bi ñu miraasee sama bàyyi la ma ca doon juróom benn million la juróom benn million laa doon ci miraas ba ci xalaat ci alal li ci des yëpp ay terrain la ay oto ay tool ndax béykat la woon di borom jom di commerçant bu mag waaye dama ne juróom benn million yooyu waxuma la oto yeeg kër yeeg terrain dama ko bàyyi sama yaag njabootam waaye juróom benn million yooyu ma ne ko daal mënuma moom laa investir ci ab boutique di ci liggéey yàlla fekk si ma ci ba fay jii may wax ak yow ku sama bàyyi jur maa la ne ma kon man ci sama deeg baay laa amee yàqin ci suñu borom ci laa xamee ne ne ko dund doomu aadama ndey yoru ko baay yoru ko baay bu dund taxul nga tekki baay bu dee taxul nga torox baay mën naa dund torox baay mën naa dee nga tekki yàllaa yorub jàmm mooy def li ko neex. moo tax nga la. moo tax ma ne la signature am tay la léegi nag eh, Mara noo mën a nangulee yaqiin ak tawxiit doomi aadama yi ci juróomi ñooñu. te li ñu ko wax lépp ci ay barab la. ci ay barab la kenn moo ci wax tudd nit muy bàyyi ñeent ña kii prison la wax barab la yu tubaab tuddee chose chose la de personne c'est une chose prison. Eh, keneen ki feebar la jaamu yàlla la mbir la. du dund du du du du doomi keneen ki eh, prison la feebar keneen ki batalo joolaa la accident la yàlla mu muccal ko keneen ki tukki la nekk àll juróom-ñaari at lam fa dund bi mu ñibbisee la xam ne kenn du Allah subhanahu wa taala ndax na ko fa yàlla wan ak dafa fa yàlla dundee ak moom ba delloo siwaat ko ci réew mi waaye léegi noo mënee jël tukki yëg ci yàqin yëg ci avion yàq yëg ci yàqin jël accident nangul ko nit ki ci yàqinam jël feebar nangul ko nit ci yàqinam jël prison nangul ko nit ci yàqinam après bañal ko doomi aadama te yàlla wax ci alxuraan ne wala xadd karam naa banni doomu adama lu ma sàkk man yàlla nit ma ci gëna la yàlla daal mën naa yokk taw xetub jaam jaarale ko ci kaso yàlla daal mën naa yokk taw xitib jaam jaarale ko ci feebar yàlla daal mën naa yokk taw xitib jaam jaarale ko ci tukki yàlla daal mën naa yokk taw xit ak doyloob jaam jaarale ko ci absida waaye mënta yokku taw xitu jaam ak doyloob jaarale ko ci banni aadama ñoo xeeb yàlla ñoo yëpp yàlla subhanahu wa taala yabu ñu ma de ñiy génn ci internet bi di ma critiquer ak di ma yàq di ma saagee ndey yabu ñu ma man ndax man nawlawu ma leen talu ma leen te faalewu ma leen boolewu ma leen sa sama programme mais yàlla la ñu yàq. du ci nit ki mu feeñee la ñu jàpp ne warul mën a ne mooy nitu musicien la li muy def mbir àddina la zaayir la est-ce que du loolu moo tax mënuñu nangu nga ne kii moom a tax ma doyloo yàlla. waaw loolu mooy ñàkk maanu yonent bi xam nga lu mu wax sallallahu alayhi feeg yaa ngi wuyoo ak jullit del julli néew ma juróom waxtu téeméeri waxtu ak ñaar bu maanu néwul ci yow sa julli des na cheerafal baabul muridina yegg ci ne maanoo gën julli waa ko ñàkk maanu mi ngi tàmbalee ci jëfub jàmbur xamoo lan la yëg ba jëf ko ngay contrôler la jëf ji fombar a jëm ak fombar te jëm may ma ko nit man man Omaro yàlla bindul ko sa bopp jëm kaw sa tànk jëm suuf ma may la man Omaro ngay contrôler sama jëf fu jëm ak fu jëmul fa ma ko neex laa koy jëmale ndax fa ma koy jëmale fa laa ko yëgee te ma la ne sama jëf ji ma tudde addiya barke Cheikh Salim Mbacke mi ma yaakaar bu ma ko yëgoon ci Ouzin Keita barke Cheikh Salim Mbacke ci Ouzin la jëm bu ko yëgoon ci Pawlish Mbaye ci Pawlish la jëm bu ma ko yëgoon ci Gouda Beye ñi nekk ci showbiz bi nga jàppaleen ay comédien laa wax de dama ne ñi xam nga Wally Seck mooy kilifa showbiz bi c'est le roi de la musique africaine mooy suñu président mooy kilifa showbiz bi waaye dama la ne ñii ñu jàppee ay laa wax ci jëm bopp bu fekkoon sama yëg-yëg gii ci ñoom la jëmee muy Pawlish baa Ngouda Beye baa kii nga xam ne tey muy Ouzin Keita ma jëmee ko ci ñoom te bu yokkul du wàññi ko. Euh, léegi li ngay wax peut-être bi nga ko développé toj ko xel nangu na ko parce que man man mi wax ak yow. dégg naa fi ngay waxee. léegi nag lii moo waral nit ñu war a maanu su ma nee Waly Seck dafa dafa yokk sama doyloo yàlla Omaro dafa bari barke bari bay de maanaam euh, keneen mënoon naa wax lii wax ko ci keneen te du jur coow lii mais yàlla dafa dogal ki ko wax. mooy Sénégal kim mu ko waxal mooy Sénégal. léegi fu ma bëgg ñu ñëw. moo waral foog coow am. mais lii ma leeral lu ko gën a leer amul ci àdduna amul waaw. nangu nañu nangu naa loolu jubóo nañu ci wàllu woowu léegi dafa am fu ma bëgg ñu ñëw mooy Omaro dama am benn émission bu ma seetaanoon ñu invité woon la euh, CNM. su ma juumul émission bi mi ngi tudd bii buzz. ñu laaj la est que am nga regret ci sa àddina nga ne waaw ñu ne la lan la nga ne mooy sama engagement ci showbiz moom ay engagement yoo jëloon ci showbiz ba mujj gi ñu la doon tooñe Omaro borom bakkan yi nga am ci ay rëccu am ci ay regret est-ce que tey bu ñu la gisaatee nga jëlaat ay engagement yu gën a fort sax laay wax yu gën a garaaw joxe bakkan est-ce que waaw yu gën a yu gën a yéeme parce que dem naa ba dégg nga ne waaye at mu jot dinaa la jàppale 30 ba 50 xar ngir euh, presse bi engagement yooyu ngay jël xol bu rëy moo la koy defloo yéene moo la koy defloo wala est-ce que Omar dafay jël engagement sans mesurer le pour et le contre dire suba yan conséquences la mën a am. très bien solo lii nga wax nii maa ko waxoon waaye dama ba tey ji génnuma ci waaye la problème mooy ci nit ñi mu jëm ñooy wuute waaw génnuma ci sama communication de tey bu yàlla dogaloon ma dal ci keneen ku dul Wally Seck di ko jàppale demi mesure laa koy jàppale cati baaraam laa ko jàppale. kon actuellement tu bois pas le euh, verre à moitié. non non non non non non verre du ma yem ci naan verre bi damay naan verre bi ba noppi lekk verre bi. <laughs> barke Cheikh Saliou Fadiakhate lu jëm ci Wally. waaw. waa xam nga ñu baree ngi wax naan non dama ne ñu baree ngi wax naan Omar na teey na dal yëfi showbiz du diine du l'islam à tout moment changement mën naa am à tout soppeeku mën naa am à tout moment cenc am nit ñee ngi wax maa ngi leen di suivre te maa ngi leen di dégg waaye dama leen ne Omar lu jëm ci mbiri waal yi bu doon verre la du yem ci naan ko waaye da koy naan ba pare lekkaale verre bi yëy verre bi warax ko wan naa su ko mu des ak jàmm kon jël nga ay engagement waa xam nga lu ko waral fi ma ànd moom la bu yàlla dogaloon tey ci sama ànd gu njëkk ak Wally 2012 2013 bi may doon sama carrière ñu doog xamante du ma ànd ak moom nii déedéet du ma ànd ak moom nii de sama ànd ak moom nii dafa am lu ko waral dama ne ci moom ba yàgg ma génn ci moom dem ci barab ne ci barab ba yàgg ma génn ci barab dellu dellusiwaat ci moom sama dem ak sama dellu si moo tax ma xam mooy kan bu dem amul woon du ma xam kan mooy Wally waa léegi nag bi dem amee ñëw am ma xam mooy kan damaa préféré man dund ak moom ni ma bëgg dund moom waali man ni may ànd ak moom man maa ko bëgg du moom moo ko bëgg de man ni ma ko bëggee laay ànd mooy lan jéggal naa ko lépp lu ma def te duma ko def ba dinay tukki parce que dégg nga mu baax dama ne sama ànd ak waali sama sëriñ Seydina Thioune mi ma jébbalu àddina ak àllaaxira doomi Cheikh Béthio dafa toog waali sekki toog Madinatu Salaam di sa avril bii passé ma ne ko Seydina Thioune mu ne ma naa ma ne ko ni may ànd ak yow laa fas yéene ànd waali mii di ñëpp nit xépp xulli seen i bët di xool waaw loolu nu mu mën a nekkee sëb sëriñ nga teg ko teg sa xarit teg sa cousin nañ ñoom ñaari tolloo ànd gi lu ko waral ma ne ko waa parce que yow sëriñ bi mënoo ma naam am ne ko damaa ànd ak yow te xooluma lu ma naqari jëme ci yow loo ma def neex nga ma ndax doo sama xarit sama soppe nga xarit laay am mu may def lu ma naqari sama xarit tey bu ma tooñee bu ma dugalee kurpañ dama ko dugal këdd ak ku mën a doon nag feek ñu ngi naan sama xarit nga man boo ma kurpañee dama lay këdd waaye nag Seydina Serigne Saliou Thioune du sama xarit sama soppe la moo war a moom bu ma korbañee dama koy dolli beneen lex bi ne ko mbajal mu mbaj ma wëlbatiku jox ko sama digg ginnaaw gi ne ko këddal ndax mënumaa gis lu ma naqari jëm ci moom parce que sama soppe la taxawaay boobu nag laa am ci Wally Seck mooy président Wally tey mënumaa gis ci moom lu ma naqari ma mara mara baa xam nga ne li cool yi bari bari bari bari bu ma ne woon jug nii tey jour tabaski bu ma percé woon dem kër waale gardien yi téye ma ci suuf dama waalee joxe digal nee na bul dugg ci këram keroog laa ko gën a bëgg maara bàyyi nga ne bu ma demoon vogue wala ma dem baara mundi ñu téye ma ci bunt ba ne waale ne la bul dugg ci ay soirée am tey laa ko gën a bëgg maara bàyyi nga ne tey bu nit indiwoon woon enregistrement wala vidéo ñu ne waale sekkee jëw Omaro ma ngi ko yàq ma ngi ko yàq lu mel ni xebe ma jàkkaarloog moom nii sama bët may ma mbaali wax ma dégg tey laa ko gën a bëgg xam nga lu ko waral mm. mooy damaa àndu ak moom ngir mu may bégal dama àndut ak moom ngir mu may mbugal damaa ànd ak moom te yàlla tax ak kóllëre ak mbokk ak deret moo waral moom lépp lu ma mën a def neex na ma ndokk yàlla nag ba ma sëkk ko as góor te mu wóor ma a du def loolu kenn mënu si dara léegi euh, bi nga waxee li nga wax xam-xam la moom ay borom xam-xam parce que am nañu sax ñoo xam ne génn nañu wax mais mën naa seeni wax peut mën na bañ a am benn degré bi parce que peut-être xamuñu leen wala li ñuy wax mën nañu ko wax te ko teg ci xam mais dafa am koo xamante ni Sénégal gépp dañoo nangu xam-xamam muy Cheikh Ahmed ñëpp nangu ne borom xam-xam la à chaque fois ay chronique am wala ay analyse am ñi dañuy nangu li muy wax mu génn mën naa wax contredire say wax dem ba ne sax euh, li ma ubbee sànq samay njëlbeenu kàddu mooy euh, jóge ci euh, cantaakun dem ci seekaakun ba samp sax ab laaj ne Omaro kii tii ba way tontu Cheikh Ahmed Cissé yaay kan. waaw li may tontu Cheikh Ahmed Cissé mooy moom suma xarit la su ma soppe la maa ko bëgg bëggal sama bopp te yàlla tax boobu ma ngàmbi di def ay vidéo di ko dugal ci YouTube bi ma ne waa ji de ku ma neex la ndax man dama bëgg nit ku doy loo yàlla mooy nit ku xam ne ñu tagg la wax la lu baax taxul nga jariñu ñu saaga lay ndey itam la dem ba góor jigéen naafeq ak giwin ak hypocrite ak gigolo taxul nga yàqu la lay jariñ waaw la lay jariñ yàlla la la lay lor yàlla la man loolu laa gis ci moom te man lii ma lay wax nii dama ko yéex xam lii ma lay wax nii ci wàll laa ko xamee la lay jariñ waaye man demoon naa ba jàpp ni nit mën na maa jariñ demoon naa ba jàpp ni nit mën na maa lor waaye sama ànd ak ma may ma xam ci ni ku yàlla bind mënoo maa jariñ ku yàlla bind mënoo maa lor yàlla mooy jaar ci maaraa jariñ ma yàllaay jaar ci maaraa lor ma waaye du maaraa tawxiit googu nag la Wally Seck def ci man loolu nag laa bëggee woon Ahmed Cissé faa ko ba noppi mu nekk nit ku neex nekk nit koo xam ne tubarkàlla comédie bi nekk ci moom kaf geeg foo geeg dafa ëpp waaye li muy ëpp ëpp ëpp njariñ nit yàlla dala may digg-digg nga amuk dégg lool waaye nag faw léeg-léeg mu am yuy rëcc déedéet du piège de am yuy rëcc am siise dama ko rëcc ah dama ko rëcc sama xarit la ku bëgg la nit ku baax la mantulaay mii secrétaire am général sama rakk la hmm. sama rakk moo yor léppam lépp lu ma gis ci internet bi mu neex ma ci moom dama koy capturer yónnee ko sama rakk ne ko sama waa bëgg naa ko kii yàlla na ko yàlla fay dama koy apprécier dama ko sopp ku ko sopp laa te moom xam na loolu waaye man ko rëcc ci sama communication bi maanaam biir communication bi te pour daa nag naa bañ a réer ndax maag moom a bokk benn taxawaay Ahmed Cissé fi mu ne laa ne boo gisee li tax mu faama moom fu mu toog ne Omaro dama ko bëgg parce que moom xam na ne tey bu doon Omaro nii lay mel Omaro it xam na ne tey bu doon Ahmed Cissé nii Ahmed Cissé lay mel parce que dañu bokk benn jikko bokk benn xalaat bokk benn vision waaye dama ko réer dama ko réer amee Cissé dama jaxase bopp bi fi ma communiqué mu toog dama xaar lam dégg ak nam ko analyser dafa wute dama ko réer te ni ma ko réeree expliqué naa la ko léegi mooy yàlla doo ko nangul ab taw xitam ci jaam jóge ci prison nangul taw xitub jaam ci suñu borom jële ko ci tawat nangul taw xitub jaam ci suñu borom jële ko ci tukki nangul taw xitub jaam ci suñu borom jële ko ci accident ba pare bañ koo bañal ci nit mënul nekk wala xadd karam naa ban ni aadama doomi aadama moo gën accident moo gën tukki moo gën kaso moo gën moo gën moo gën moo gën feebar kon nag li ñuy nangul yàlla ci mbir yooyee nañ ko koy nangul ci jaamam mi moo tax ma ne la Ahmed Cissé daf dama ko réeral ci communication mais mere woo ko mere woo ko ci numérologie tey laa ko gën a bëgg Ahmed Cissé bu seeraanee sama vidéo bi ma invité tey laa ko gën a bëgg parce que nit ku baax la déedéet man du ma mere nit ci li may wax du ma bëgg nit ci li may wax. am na ci ñu génn bu ñeneen ba ci sa ay mbokku cantaako nag ay man gis naa vidéo yu bari ñuy dal sa kaw. ci maanaam Omaro da daan woy Serigne Saliou ak Cheikh Béthio jóge ci dugg ci soo bi saf ci sàpp. doyatul léegi dem na ba jël waali bëgg koo teg ci palaasu ñooña mu daan ko. waaw léegi xam nga li ma lay indil foofu rek mooy cantaakoon yooyu nga gis ñuy génn ci internet bi di wax mu nuyoo ak mu bari. man ñoom ñoo ma yab waaye ñoom seeni sëriñ yi ñu jébbal bi Cheikh Béthio génne àdduna seeni sëriñ yi ñu yeeslu moo xam ci doomi Cheikh Béthio la wala ci soxnay Cheikh Béthio yabuñu ma ndax dama ànd ak seen baay diñ ma ñim doonoon seen borom kër ma ak seen borom kër diñ ma ci fulla ak fayda ak jom ak bëgg jëf ak dëggal sama bopp nag mu metti woon lool ñu tere ñu cant gi ci mbedd yi jàpp sëriñ bi yóbbu ci kaso bi na daara yi nit tuumaal ko sosol ko ñëpp toog seen kër ñu tere ñu sax takk njël lii ñu tekki suñu njël ma takk sama njël dem ci télé bi créé émission cadd gi à 2012 2013 booba ñii wax tey naan Omaro gëmul Cheikh Béthio ak war na seex Béthio fu ñu newoon maa ngi ñoo maase de baa ñu mag ma fan la ñu woon moo tax ma ne la ñoom ñoo ma yab waaye ñoom ca ñañ jébbulu yabuñu ma ndax dañu fekkee bi muy metti ñëpp toog ci kër yi man maa génn dem ci télé yi yor drapeau bi yor flambeau bi kenn déggutul cant gi ndax foo tàllali basan gendarmerie fekk la fa jël yóbbu foo baas ay baas takki rajo gendarmerie fekk la fa tas ko ndax lan sëriñ baa ngi ci kaso bi ci zaayir ndax jin nañ ko de ay nit dañ dee biir këram te moo leen rey te billaahi yëgul tinul barke Cheikh Saliou fa jaxate waaye nag jamono am ni muy doxee ñu jàpp ne loolee mbir loxo ma nga ci ndax këram la xewe yëf yi amee ni mu amee xewee ni mu xewee ñu tere ñu cant gi interdit tous les cant daakoon bu kenn cant ci ci mbedd ma jël cant gi yóbbu ko télé bi émission cant gi en 2013 laa ko dooree LCS ba fii may wax ak yow barki démb laa doon feete 10 ans de carrière cant gi ci weeru koor bi waa gars yi génn ci internet bi naan Omaro gëmul Cheikh Béthio war na Cheikh Béthio lii na Cheikh Béthio laa na Cheikh Béthio waa bi mu méttee fetali génn bi mu méttee liif yi génn bi mu méttee ñu tere ñu takk njël bi mu méttee ñu tere ñu laaj sodi basan daara ci mbedd yi Omaro génn dem ci télé bi ne émission cant gi yor cant gi boobu ak fukki at fu gars ne woon moo tax mën a la ñoom ñoo ma yab ñoom gone yi cantaaku ni ñàkk fayda yi tekkul dara yi nga xam ne amuñu métier ñoom ñoo ma yab mais ñoom seeni sëriñ ñi jébbalu yabuñu ma ndax xam nañu ma te xam nañu it fi ma jaar ak seen Béthio kon man ñooñu bajo bajo yooyu aw ma lu may wax jimi ci ñoom beneen wax ji mooy eh, sama doom bi ma jur tuddee ko Serigne saalu Seydina Thioune ren la am juróom-ñaari at daf maa seenaan ci internet bi may def social di may ay xar mu ma ne ma papa damaa bëgg xar par ko waa Seydina yow nooy nekkee France di ñaan xar looy dee moom ma damaa bëgg xar may ma xar nga indil ma ko France ma ne ko noonu loolu mënul nekk Seydina xar bi mën ñu ko dugal ci avion bi di ko indi France ma ne ko léegi bàyyil ma yóbbul la ko sa kër maam Ndar ñu lewatal la ko defaral la ko ba mu baax léegi am nañ ay pexe yoo xam ne ndawal li mën nañ koo jaarale ci avion bi ba mu yegg si nga jariñoo ko mu ne ma d'accord sama doom moom mi ngi tàmbalee seetaan li ci réseaux sociaux yi mi ngi tàmbalee seetaan li ci télé yi bay xam li baayam di wax li baayam di jëf waa leneen li nag maytuma ko nit te nag waaw tu verras parce que am na ñaari plainte yu jot dugg tabaski bi moo tax fi mu ne nii euh, yoon liggéeyul gars yi jël pause ndax dem julli ji ñii dem seen dëkk ñu jullee Ndakaaru waral ñooñu fi mu ne nii tabaski ci kaso bi waaye ñaari plainte dugg na mayetuma ku nit nit kuy taxaw moom teg photo Omaro tudd turam déedéet bañ ma dal sama dalal sama kaw la saf loolu bañal ma ko nit parce que métier bi ma nekk ak ci li may yëngu ak fi ma féete du ma bañ ko wax ci man lu ñaaw bañu ko waaye dama ne sama photo moom ku ko tegati wax ba saaga may ndey moom ku yàlla bind mënta tee moom di ko nga ko mu la wala mu met sa waaw parce ay ay innocent ay innocent ñoo koy wax ñoo xam ne xamaluñu dara Umarou mais ay woyoo ki bandi yu tekkiwul dara yu demul fenn amuñu fu ñu jëm ñooy làqatu ci seen i ginnaaw di leen mosal ay 30 mille ki 50 mille ñu ne ñoom nag ñooy jaay mu fit di génn ci internet bi di taf sama foto di ma saagee ndey loolu mayatuma ko nit 10 ans de carrière laa def di ko baale mais 10 ans yi man na c'est fini képp ku génn ci ci internet teg sama photo tudd sama tur man wax ma wax du ñaaw ci kaso bi ngay dee. kuy gaaruwaale nag ak di dund di wax ba ñëpp xam na man sama yoon newu ci yow parce que tuddoo sama tur dafa sans photo waaye sama tur ak sans photo moom ku ko defati ci internet ma yóbbu la ci kaso bi Mara balaa maa balaa maa balaa romb foofu damay ñëw ci sama diggante ak Seydina Thioune Mara ma je suis un incompris dama la koy wax tey man man xam naa ni je suis un incompris man waruñu maa xam ci sama dund man duma ma ku ñuy xam ci dundam waaw man loo mën dund ci at mu néew ak mu bari sénégalais duñ ma xam parce que yàlla ñu ma pour ñu xam ma ñoom waaye bis bu ma génnee àdduna lañ may xam waaw bis bu ma faatoo yàlla yéex bañ jël ma def ci jaag yóbbu Tuubaa ca bàq ya ca la ñuy xam kenn muy Omaro waaye dama la yëgal na la lépp lu ma def ci Wally Seck sama kër ndey laa ko njëkkee man duma sax mbaalaar maara déedéet fii nga ma fekk sama kër la ma toog ca kaw sama yaay ngi ne toog jàkkaarloog man samay mbokk ngi toog samay ndijaay ngi toog samay jarbaate ngi toog samay cousin ngi toog samay cousine ngi toog dama la ne man du ma sàmbaalaar émission bi moo naa ko defee sama kër du wax man kase ndax man rek dëkk mais dama la ne fekk ma sama kër yaay ngir li may wax sama yaay di ko digg samay mbokk di ko digg man du ma sàmb alaar lu ma def ci mbedd mi ci fondation bi def ko ci mbedd mi ci Wally Seck ak Massamba ak Mademba sama kër nday laa ko njëkk sama kër baay man samay mbokk dañu maa gërëm samay wajju dañu maa gërëm ñaanal ma samay rakk ak samay jarbaat sax dañu maa gërëm ñaanal ma kon man awma lu may def ci mbedd mi loo xam ne njëkkewu ma ko ci sama néegu ndey benn baa yëg nga ne naa Cuun mi ma jébbal sama bopp àdduna ak yàlla dogal bi bàyyam génne àdduna làkku ma yeesu ci moom taalibeem bu yeewoo senegal jëf ju ma sa woote maa la ci man e Mara dama bëgg nga déglu ma ah. te ci télé bu mag ngay waxee. parce que nag sama yéene mooy bu wax ji jàllee janvier 2024 laay waxaat moo fekkee ah. waaw incha allahu. boo waxee tey. moo waxee tey jii. interview may ko nit mu ñëw toog samp caméra bu xasee ba gën tey moom fas naa yéene juróom benn weer yi nag man concentré wu ci sama bopp ak suma liggéey ak ci président Wally Seck wéyale sama bu yoon bàyyi ba 1er janvier 2024 ma woowaat keneen ku mel ni yow mu ñëw ngi def résumé waaye wax yu bari yi moom du ma ko man ndax ama boobu jot dama lay yëgal na la Seydina Thioune mi ma jébbalu àddina ak alaaxira ngir jëmmi baayam ndax baayam moom ma ko may maara bàyyi nga dara daf ci am ñaari baat yoo xam ne damay gis ñu bari ñu yàq sama der ak dima clash dañu koy utiliser waaye ñàkk maa xam la amul ngor ak dama liggéey <laughs> ñoom ma ñàkk xam maanaam man xam nga ne mu amee 40 ans damay retraité. amadu amadu amagu 40 ans. amaguma 40 ans te moo ko amee damay bàyyi liggéey ak sax ba kenn doom man sama dund bépp dama ko liggéey maanaam dama teel a liggéey fukki at ak ñaar laa tàmbalee def métier vite at mi ñoom laa dooree. man def naa maçon def naa menuisier yi jaay naa café Touba koo xamul xamoo ko nan dem marché Castor ñu laajte kan mooy Moro nan dem jëppal ñu laajte kan mooy Moro nit koo xamul xamoo ko man bu ma amee 40 ans damay bàyyi liggéey parce que man sama enfance bépp dama ko liggéey ndax damaa teel a bàyyi jàng benn waaw dafa mel ne sa jaar-jaar boobu daa métti de parce que dafa mel ni su yàlla ah. larme non a waxtaane danañ ko gën a leeral lu lu méttee métti la bu ma gisee ku may xas wala kuy commentaire dama yàq naan ndax man sama life bi dama ko liggéey xam nga re 65 ans la man 40 ans damay retraite damay bàyyi liggéey su ma amee ñeent fukki at damay wéeru la ma liggéeyoon lépp ma xool na ma koy noosee taxaar dee un de su ma gisee nit ku wax ba yàgg ne amul ngor maanaam baa xam nga ne ngor a tax ma ànd ak Seydina Serigne Saliou Thioune Seydina Thioune mii soxna yi da jàll soxna Cheikh Béthio moom la ma Cheikh Béthio njëkk dénk ci àdduna tey laa la yo révélation tey laa lay waxal lu ma wax ci site internet lu wax ci télé lu mës ta kenn man samay jëf yi njëkk jëmee ci Cheikh Béthio ci ay adde ñu koy wàññi ñu naan 1 million ak 1 million 500 2 millions ñetti nag yi ma njëkk jox Cheikh Béthio ci màggal te liggéey ko muy sama ñag ci loxo joriñ universel soxna Aïda Saliou laa ko daan teg boobu joriñ universel la mooy soxna Aïda Diallo sama yaay ju baax ji maa ngi koy di ko ziyaare di ko ndokkale te di ko ñaanal jàmm soxna Aïda yàlla la yàlla may jàmm yàlla nga mucc yàlla nga wér te yàlla na nga yegg neew yoon sama yaay ju baax la moom la ma sëñ Béthio njëkk booleel ci dénkaane sama jëf di jaar ci moom ñu dox ba yàgg yàlla dogal Seydina Serigne Saliou ci jóge ca daara ja bi mu jugee ci daara ja ñëw ñu gisante rek bëggante cofeel dox suñu diggante sëriñ bi boole ñu ñuy ànd ci kóllëre yarandoo màggeendoo baa xam nga ne mag naa bokk nañ benn baa école euh, de la fosse waaw cofeel tax na moom muy dem di jàngi benn formation de la fosse ma bëgg ko ba topp ko ànd ak moom dem inscrire ñuy ànd di jàngi mag naa Serigne Saliou mii mi ngi dund liberté 6 laa nekk di ko wax cité kër góor gi la ne mi ngi fii di ma dégg nit du dundu nga di ko neenal ngir bëgg gi ma bëgg Seydina dem nag ba sëñ Béthio xam ne Omaro mi daa bëgg Seydina Serigne Saliou te amul ci moom sago sëñ naa xam laa may naa la ko ci xol bu sedd guy jàppal ne sama ànd yow mooy sa ànd ak man loo war a def ci man boo ko defee ci moom wàcc nga keroog bi sama doom juddoo ji bu góor Cheikh Béthio bàyyam ne di dund damaa jël tur bi jébbal ko Seydina Serigne Saliou mu nangul ma ko moom Cheikh Béthio waaye dama la ne man su ma ñàkkoon ngor soxna ay da laay topp moop bayre moop barke moop wërsëg làmmiñ bokkul dëgg wax ay fen dama ne lii ma lay wax nii waxuma la cantaakoo nii tiijaani sax xam nañ ko waaw non non non xam nga man ma non non man Mara samay wax bu riir mi taxoon mbala ay koppar. dama ne man samay wax du neex parce que du ma ragal te li may wax dama koo xam samay ma may man su ma ñàkkoon gor intérêt tax may topp nit soxna Aïda Diallo lay topp te dama koy teg fu leer. fi ma koy teg mooy bi may door moom la ma cheikh bi dénkoon ah bi may door moom la ma cheikh bi dénkoon dëgg la raison la waaye ci njeexiti lu dund cheikh béykat daf maa may Seydina comme man boo bàyyi Seydina dem topp Soxna Aida jàll du ma gor waaye dama ne man su ma ñàkkoon ngor di topp sama intérêt Soxna Aida Diallo laay topp ndax lépp lu nit di toppee doomu aadama ci alali àddina Soxna Aida Diallo ko ëpp nit di toppee doomi aadama ci àddina yii Soxna Aida Diallo ko ëppale muy alal moo ko yor muy terrain kër yeeg oto yeeg visa kon tey koo xam ne damay jaamu sama soxla man dama fi bàyyi Seydina Thioune dem topp Soxna Aida Diallo Seydina Thioune ak barke ak wërsëg bu seeb moom te terewul nag seeb bi tibbal na ko moom Seydina dénk na ko tibbal na ko jox na ko waaye mi ngi dund fii Sacré-Cœur nekk di ma dégg soxlaw ma dërëmam su màggal jotee maay rekk sama mil bu gàmmu jotee maay rekk sama mil nag jox ko bu 17 avril jotee maay rekk sama mil jox bu addee jotee maay takk sama mil jox ndax lan maa ko bëgg ngir jëmmi baayam waaw kon man nan laa mën a ñàkkee ngor topp doomi Seex Béthio jox sama alal te soxna na fi topp moo ko toppoon moo may dimbali ma soxna Aida ni ma ko xamee ci tabe tey heure bi moo fekkoon di ànd ak moom ba léegi maa ngi wàññi ay kër yu moom moom sax bopp bi Ndakaaru dégg nga ma naan la sama kër gi ci Mermoz sama kër gi ci Ouest Foire ak sama kër gi ci Nord Foire ndax ni ma ko xamee moo ma yar te bi coow li bare cheikh bi di soog a dëdd itam nëbbuwoo sa péete déedéet te booba metti woon na moo tax mën a sànq ci sama njëlbeenu kàddu cantaaku ni ndaw yi génn ci internet bi nan day dal sama kaw ñoom ñoo ma waaye seeni sëriñ njabuñu ma léegi rek Omar xam nga tax ma bi yëfi tàng jër kenn ñemewu la wax Cheikh Béthio génn àddina ci lu kur ku la naan ku koy doon nag ku koy wuutu maa dem seen TV toog jàmmarloog gars yi ne leen oh nañ ma maytu. image nañ ma maytu nañ ma maytu xale bu yàggee ci biir xale. bu yàggee ci kër xam lu bari. des koy maytu nañ ma maytu ñaar fukki at laa ànd ak Cheikh Béthio mu dugg génn àdduna lépp fekkee bari li daa yi xam te mu ñu fenn taxuñu maa jug bokkuñu ci sama programme li ci kanam nag rawali bët nan doxal nan doxal euh, xam naa ne li ñu desee ci waxtu bareetul ndax Papis mi ngi may def signe mais Papis dama am ñaari question rek yoo xamante ni mënu ma ko bañ a laaj Omar ci la ñuy yëkkatee jotaay bi bi ci njëkk euh, dañuy des ci déclaration ba léegi ca kër Waly Balago Seck parce que léegi moom mooy porte parole bi moom mooy communicateur bi euh, balaa waalee wax Omar wax ba noppi mais Omar war naa xoolaat wax ji que bu fekkee heure boo waxee wax ji def coow Omar war nañoo seetaat euh, communication bi damaa dégg nga ni euh, dafa am loo defoon France nga toog 4 ans France ñu tere la ko waale tax nga duggaat France euh, ma bëgg a xam ñaari mbir rek bu fekkee c'est pas indiscret lu Omaro defoon France bañ tere ko France ñaareel bi fan la Wally jaar ba dugalaat la France. waaw loolu du ma ko mën a leeral parce que vie privée la Wally ci boppam moo ma jox ndigal na ma bu ko leeral mukk keroog wax gi ma ko wax sax ci mbooloo mi ni ko bett ndax ba mu koy def defu ko pour mu wax ko da ko def te yàlla tax. da koo def parce que da ko war a def ndax damay njabootam bokk ci moom am cër ci moom te cër gi li ma ko may mbokk la deret la du jëf du wax parce que dëgg yàlla kooku ñàkkul ko ko jëfal ñàkkul ku ko waxal waaye mbokk ak deret la ma téye ak démb euh, moo waral du mooy mën a dugg ci ay détails waaye daal xam naa ni am naa lu ma defoon France lu privé loo xam ne man la concerné ak sama njaboot ba waa ambassade France tere ma France fiché ma waaw fichier ma génne ma France ma toog ñeenti at yu ma mënta dugg France li Seck moo jël sama passeport defal ma ci visa dugal ma France barke dem moo njaay ci doom de Paris. léegi Omar doom ak ni mu neexee ci xol. rawatina muy góor. nga tuddee ko sëb sëriñ muy ku sori ci yow nga toog 4 ans gisoo ko keroog bi nga dajawaatee ak sa doom gis ko. sa sant dama dama kontaan sama xol dafa sedd guy xanaa xamoo ne keroog bi ma wàccee France wàcc Paris Charles de Gaulle teg samay bagages rek daal di jël TGV bi bënn. daw deux heures et demie dugg Villefranche-sur-Saône Lyon Trévoux wàcc gis Seydina Serigne Saliou mu ndaw dama ko ne yow day gis gi ma la gisaat nii dana tax ba dinay tukki bu Wally Seck fekkoon ma taxaw mu fo sama yëre bi ubbi sama biir bi di ko fees sax duma ko bàyyi dama ne sama doom ji keroog ba ma ko gisee dama ko ne gis gi ma la gis tax na bu Wally fekkoon Omaro mu taxaw mu xotti biiram di fees butit yi duma ko bàyyi ndax li ma defal ci sama doom ji góor jooju kon tey am na ci loo xam ne du lépp ngay mën a wax maanaa waaye man fa ma communiqué ak fa ma teg sama communication ba tuddee jëf ji addiya benn ñaareel bi ma teg ci na doyloo yàlla waali sek ko def ci man maara indil ma toutes les chaînes du monde ma waxaat ko ndax ci lu leer laa taxaw di ko wax du ma ci dellu ginnaaw jaam ñi nag nan nangul yàlla ci jaamam bi te bàyyi di nangul yàlla ci asamaanam si bàyyi di nangul yàlla ci suufam si bàyyi di nangul yàlla ci kaso yeeg prison yeeg ci accident yi di ko bañal ci jaamu yàlla yi ndax wala xadi karam naa bani aadama asalaamaaleykum mënoo daaneel une def nañ interview presque plus de trente minutes heure booy wax danga naan fa ma ne woon lu tax nangoo tudd fa nga newoon te pourtant gis naa Sidi Diop bërki démb Aba invité ko ba mu lay sax ci ni nga doon waxee ni la waali oto bi lu tax nangoo tudd suba teel nangoo tudd mataar nangoo waaw du question bañ a tudd damay bañ a tooñ waaw damay bañ tooñ peut-être muy Sidi muy Maxtaar ñoom am na nu maîtrise du Maxtaar sax parce que gisuma man Maxtaar mu tudd sama tur ma koy nuyu de passage Maxtaar Diop suba teel su ma mag la su ma mag la nit ku yàlla baaxal la eh, ma leeral ko tey comme fasatuma yéen a génn eh, feeg feeg feeg juróom benn weer eh, feeg juróom benn weer fasatuma génn ci site internet di wax ak di leeral damaa fa yéene concentré wu ci liggéeyu président Wally Seck ak suma liggéeyu télé en tant que ambassadeur kaapay transfert d'argent bu mag bi waaye en tant que ambassadeur Aquaterra ndox mu neex bi waaye en tant que ambassadeur centre sécurité en tant que ambassadeur porte-parole Awa Baba Thiam man dama bëgg concentré wu ci ñeenti liggéey yooyu nga xam ne ñeent ñi am ci man yaakaar dénkuma ko ak liggéeyu président Wally Seck en tant que son porte-parole amatuma yéene di toog di détaillé ak leeral di leeral waaye li ma bëgg rek. tëje ko foofu mooy Makhtar jóob du sama noon Makhtar Diop suba teel suma mag la suma mag la joo xam ne yàlla moo dogal sama njëlbéenu carrière jaaree ci moom mu sonn ci loolu nag wax ci lu ne daj ci lu ne ba ma egg si fii ma egg si tey ba ma doon lii ma doon tey waaye dama lay yëgal ne la mère Dieyna Ba Fall moo jur Ibba Seye mère Dieyna Ba Fall baat lay tukki Abdoulaye Wade lay topp. Iba Seye fii may wax ak yow mi ci Macky Sall que dégg nga ma te dak ko nangul awa yóbbu kesteer sama yaay ju baax ji yàlla ko yàlla yërëm te yéexuñu kesteer la woon assemblée nationale topp Ablaye Wade ba ni mu génnee àdduna Ablaye Wade lay topp tey boo demee këram Babacar Samb doomam mi ngi APR maire Wara Sarr baat nay tukki Ablaye Wade lay topp moom lay xeexal assemblée suba ngoo guddee bëccëg tey boo demee këram jur na doom ju góor ju ñuy wax nas mi ngi APR il faut nit ñi comprendre ni ndey ak doom moo gën a jege fuuf mag ak rak gën a jege fuuf xarit ak nawleem te dañuy bokk vision politique ba yàgg ñu ko bokk dañuy jëkki jékki ci départ ñu départ dootu duñ bokk vision politique yàlla moo dogal maag Maxtaar Jóob suba teel duñu ay noonu Maxtaar Omar ay bakkanam Omar rek la bëgg moom lay nooyee manit sama xol bii daf ci am cër bu réeréeréy ma bëgg ko te yàlla tax muy suma mag mais yàlla mooy dogal li yàlla dogal mooy ci sama njalbeenu carrière maag moom dañoo bokkoon vision politique mooy man fi ma daan gis la daan gis moom fi mu daan gis laa daan gis waaye nag danoo dox ba jamono dem ba am fu mu toll ma màgg xàmmee ràññee mën a jël samay responsabilité bopp jël sama vie jël sama dund amee ah, téye ko doxal ko ni ma ko bëggee bokkutuñu vision politique bokkatuñu vision politique mooy ça dikk léegi gannaaw man ba ma màggee ràññee toll ci téel sama dund amee bañ koo dénkiti ku yàlla bind man sama vision politique Waly Ballago Seck la gis son excellence monsieur le président jàmm réew mi non mënuñu am jafe-jafe loolu mënul nekk Matar ak Omaro jafe-jafe mën ta xew ci seen diggante loolu c'est impossible ba àdduna tukki jàmm rek ay xew ci seen diggante waaye dama la ne yaay ak doom dañuy dëkk ci benn kër duñu bokk vision politique kii gis Abdoulaye Wade kii gis Macky Sall waaye dama la ne maag Matar duñu ay noon waaye bokkutuñu vision politique man sama vision politique ba àddunay tukki président Waly Seck lay xool li des ci sama dund sama vision politique Waly la moom nag vision politique am mën naa nekk Massa mbaa mu nekk Mademba mbaa mu nekk Alaaji mbaa mu nekk Paate dama koy nangul parce que na ku nekk sa gis-gis ku nekk ki la bëgg. léegi si lii mi la